wa barakaatu yaakaar naa mbokk yi mën naa wax ci turu yéen ci seen tur yéen ñëpp ci sun tur ñun ñu doon déglu ne dégg nañ fi dundub góor yàlla goo xam ne mat na royuwaay ci anam yépp loolu sëg doy na moo gënoon nag ngeen baal ma tuuti rek moo gënoon nag ngeen woof benn waay xar baax bu mu xam bu am ak bu amul bu keneen moom ak bu sëñ daaru moom mu booleel leen ko su noppee doo ci jariñu dara est rek ngay wax amul njariñ jamono wees na foofu tollu leen fu ngeen di campagne ak fu ngeen di propagande jamono wees na salaamaaleykum léegi nag euh, li mu wax man dama cee jàpp juróom-ñaari tomb yoo xam ne jortoon naa ne bu nekk sëñ Modou mën na waxtaan waaye dama koy fàttali nit ñi rek ñu bàyyi waale ko xel bu njëkk bi mooy tolluwaayu xam-xam ci sëñ daaru asan mu firneel ko ci ñaar benn mooy xasiida gi sëñ daaru asan bind muy ada ali qamarun bi ci des mooy fatwa bi nga xam ne doxoon na ci digganteem ak sëñ omar Diop loolu yu bare bari ma ne sax ko ci jàngal ci ñaar ñoom ñëpp nag ki ko laaj ak ki nga ko laaj waaye xëy na loolu beneen tomb la foofu nag dama am aw xeer woo xam ne danaa ko sànni laj na ilmiya xasida ak sëñ daaru ku xam dara mustawaa lu mu gàtt gàtt gàtt dalay leer na kii xasida gii du premier xasida loolu moom mën naa koo waat te mosuma koo gis mosuma koo dégg kenn mosuma ko wax ku gis xasida gi ku xam dara ci arut xam dara ci adab xam dara ci naxu xam ci biñetu kalimaat ni ñu def xam ne lii moom du xasida gu mu njëkk a def léegi nag su boobaa li may njëkk a laaj sëñ Modou yow yow sunu sëriñ nga naa laaj sëñ Modou mu ci des ana xasida yi ci des nag ana guy sëñ Daaru Asan leneen lim bindoon ku ko gis rek xam ne lii moom du premier xasida loolu nag du yéen dong de yoonu murit ñu baree bari dafa am ci diggante bi benn fossé bu fi dox ñu jékki-jékki mel ne fàtte li fi nekkoon xam-xam bi ba li fi nekkoon yu baree bari ñu mu sàggan ndax ñenn ñi dañ koy ziyaare barkeloo ñii ne ah li ci des amul solo sëñ bi rek am solo mel ne lii bokku ci sëñ bi kon loolu mooy bu njëkk bi beneen bi mooy gis nga niveau xam-xamu sëñ daaru dafa fees ci ci ci li ñuy wax wax ruuxi daal ci dëgg tolluwaayam ci yàlla soo gisee sëriñ bi ñi ko wuy si ca njëlbeen ga bari nañ waaye ay catégorie lañ am na ñoo xam ne wuy ji woote bi yàlla leen fi indi waaye doonuñu doon ñu ñu ñu ñu munta ñàkk ku leen ku leen ku leen gindi am na ci neexut a wax nag waaye am na ci ñoo xam ne fañ eggoñ suñu borom ndax ña nga daa tarbiyee ñoom seen bopp ña nga daa eggal ñu ci yàlla xam-xam loo leen ci kii ñu laaj ñu wax la ko soxlawuñ ko woon waaye wuyu sëñ bi ak yokku ndax sharikatul musaahama la ñoom dañoo yor lu bari sëñ bi yor jopp nga xam ne suñ dugalee seen yëf ci yëf yi sëñ bi dañu am lu dul jeex loolu moo tax am na ñoo xam ne ay ñaari at lañ fa am am nañu ko manqué ñu baree bari Touba ji ñu wax nii mag ñi ñëpp kenn yëwu koowu ci tubaa ñu ci ëpp bokk kenn yëwu koowu ci Touba da am na ñu baree bari ci ñoom Daaru Salaam nañ yëwu ko lu ko waral ndax ñoom booba set nañ ba noppi sëñ bi da leen di duyal am na ñoo xam ne seenu njàng soriwul am na ñoo xam ne nag surtout ci mujj gi jàng jànguñu dara kon ñett yooyu bokk sëñ daaru ci bu njëkk bi la li mu am nag ci bi bokk loolu yaakaar naa na ci li ko ko may ci ngay gis nga jaamu yàlla ci la ci lay feeñe beneen bi dafa feeñ ci waxi euh, sëriñ bi mooy li ñuy wax istiqaama sax ci njub maanaam ni mu mënee jàmm yàlla man sama maam da ko daan nett lu bare bare man ñaar laa daa dégg ci ñoo xam ne damaa gis ku leen xam ak seen naafila guddi muy sëñ Daaru Asan Njaay ak sëñ Mortala Fall moom Cheikh Ibra dañ ne sëñ Mortala sax su yaakaar ne suy la guddi da ngay yaakaar ne ab naar mooy mooy mooy jàng noonu la daa yokkee comme tajwid waaye man sama maam ku ma guy moo wax ku ma guy ki ko yoroon ci biir kër sëñ Daaru sa na ne ma guy itam sëñ Daaru moo ko wax ne ko yow Kumba yow sa baay bul soxla dara ngay laaj sëñ baara wala keneen maa ngi fii man soxla waaye maanaam gis nga ni mu ñeme woon euh, naafile moom ñi nga xam ne sax duñu soxna yi waaye ci kër gi lañ nekk ñoom ñëpp ko xam waaye itam noonu la ci saxale woon ci ñi des beneen bi da koo tudd mooy lu am solo jaamu yàlla ngir jaamu yàlla su jubluwu ci karaama xam nga li mu wax ne su ngeen gisoon kat lii ma def ko te waxtu yu jot ñu nodd te jóguma jullu xam leen ne saytaane la waaye du yàlla loolu njàng moo xam ne ñu bare bari war ko ca bàyyi xel ñetteel bi da cee feeñ ci waxtaan wi mooy sëñ daaru dafa am tawfiq suñu borom ci teel si sëñ bi ba mu ba mu ba mu wootee ca booba ay nawleem la fa fekk nawle mooy lan ñoom ñépp dañ doon jàngandoo nga xam ne sëñ moor sëñ sëñ xaadu moor mooy jurwaati moor antasali moo leen doon jàngal kon ak rawante dana fa am waaye ñoom ñëpp daal ay nawle lañ ci mu jàng waa léegi koo xam ne xam-xama ko fi indi woon bàyyi na Mor Balla Ndiaye fee ca njare ak ñeneen ak ñeneen ñëw ci yow sa way jur jóge fi nga ne ko léegi da ngeen may topp ma woon leen weneen yoon waaye du mu am njàngum kese loolu xajul ci bopp ñëpp tawfiq suñu borom la yàlla ko cee dimbali gis nga ndimbal loolu nag lu ci fees la sëñ Modou bàyyi ma ñëwaat njare xam nga bëriwuñu ay cheikh bëriwuñu cheikh de cheikh yi ci ëpp cheikh sëñ daaru lañ wala cheikh yi cheikh ngeen jëgal ma ko su dee ñun ndaam ndaam yi bari nañu ay cheikh de damay tooj rek nag waaye dama bëgg wax dama bëgg wane taxawaayu suñ daaru foofu la moo tax njare bariwuñ ko gis nga njare du njare kese sax kër yu mag yi njare ndaam kokki dama sax jëmmooy ñooñu diine dafa yàgg ci ñoom te ñoo ñu wax dëgg yàlla ci réew yu wolof ñoo fi njëkk mbàkk mbàkk yi fuuf nag fuuf nag ndax mbàkk mbàkk yi penk lañ jóge ñoo leen fi njëkk ñu xam seen i daara naka jekk yàgg a génne ay fóoreeg boroomi xam-xam am niti yàlla moo tax ñoom daanaka dañoo xawoon a doyloo seen bopp du njare dong nag waaye njare da cee gën a fees njare ba léegi sax dañoo tëju soo leen gisee ba léegi dañoo tëju xool leen ci seen sëy yi xool leen man na ci laa bopp ndax ñii di wax nii ñu ci bare bari maa leen gën a doon njare njare man kon su may wax man man mën naa ko wax waaye bëgg woon sëñ daaru tawfiq bi mu am jóge ci nit ñu mel ñii li ñu war a am lépp ñu am ko jekki-jekki bi woote mu bàyyi lépp wuy jugoo ngir yàlla loolu tawféex la loolu moo tax itam la ko yàlla dimbaluwaatee ba mu delloo njare gépp ko topp en tout cas à 90 pour cent à 90 pour cent dañ koo topp li ko waral mooy def ngir yàlla googu mu defoon ak wujj te yàlla kese kese tax te mooy feeñ ci xirayaatiqati ridwanuhu abadan loolu tax na bi ci des mooy ak dogoom dogu sëñ Assane Ndiaye mi ngi feeñu ci ni nga xam ne toujours saxaaba yi la daa joxe misaal sëñ Cheikh Mariam rahmatullah alayhi wa radiya man jot naa ci njàggat bi ma def ak euh, silsile yi ma ci am mu jóge ci sëñ sëñ Cheikh Mariam mu jaar ci sëñ Bay Faal jóge ci sëñ Daaru Asan jàpp naa ne sëñ Cheikh Mariam ni mu mel maanaam sëñ Daaru Asan tax ndax moom dara day nett lu baree bari ne sama baay moo ne ma nangam ak nangam benn bi laa ci li nee na sëñ Bay Faal doone ko dafa am bis Ehm, sëñ Balla Badiane sëñ Omar Diop sëñ Mansour Diaw ñeenteel ba laa fàtte dañ koo yendu sëñ naka jëkk leen léeg daan nañ ko def waaye fudul gi nga doon wax nekk ci ay caaxaan ni mu ko bañe woon ñoom ñooñu nit ñu baax ñooñu dañ daa fàttalente ci yàlla nee na sëñ Daaru Keroog da leen fàttali ci saxaaba yi di tudd diw di tudd diw di tudd diw ba kenn sëñ Balla Badiane wala sëñ Mansour Diaw kenn ci ñoom ñaar dañu dafa jëkk léegi daal di yuuxu daal ne man tippoo naa Seydina Ousmane ca boobu li ma bëgg wax rek mooy pas-pasu sëñ daaru li ko mel mooy la leen sëñ baa waxoon ne saxaaba yi ñooy seen baay ci diine te li nga wax da ciy feeñ bi ñu des mooy moom lay mujje mooy tarbiyaam maanaam ni mu daa yare te nga wax wax ci ni mu leen daa wone ci taalibe waaye nag ak jaamu yàlla ñu ngi ciy nettali loo xam dañu sëñ Bay Falloo ko nettal de ñu ne xam nga sëñ Modou Sow dafaa ñëw euh, comme sëñ Daaru Asan nga xam dafa dafa sukk ba dem xam ma xisa bi wér naam wérul nag waaye wax ji wax ju am maanaa la mooy joxoñ gu mu ko joxoon sañ sëñ Modou Moussa ndax man su fekkee na am ma silsila bi itam nga xam ne dama ko jéggi ci noonu rek nag moom nañ ma ko jéggal ak donte kooku ab sëtam la waaye damay xam ne kooku fekkewu sëñ daaru xam nga keneen ko fa nettali te tuxal diggante euh, nopp ak gimiñ soppi ku mën na caa am waaye xam nga man li ma ci gën a yéem ci loolu mooy li mu joxoon yàlla léppam yaroo yar ay nitam yàlla dimbali na ko ci xoolal njabootu sëñ daaru bari na ci ñu mujj ñoo xam ne xamuñu sëñ daaru xam guñ mën a wax ne moom ma defal ñoom ñoom comme sëñ Ndiassane ñoom sëñ Abdourahman sëñ Abdourahim ñoom sëñ Abdourazaq ñu mel noonu waaye fii ne yar bi nekk ci ñoom dëgg-dëgg mooy maanaam li ñu jox seen lépp yàlla nangul seen njaboot nekk ci yàlla moo leen may loolu ci des xool ko ci ñëpp rek sëñ Abdourazaq mi fi mujj maanaam ni mu nite woon ak ni mu amee njariñ ak ni mu bëggee mbokk moom mi nga xamante moom laa ci xam moo moo ci mujj loolu itam noonu la royaate ci ñeneen ba ci sax njaboot gi nga xam ne njabootu xaal lañ euh, ku demee ne maam Ibra Ngoone par exemple suñ lay nett lu meloon ku demee ne sëñ ma Oumy sëñ Omar Sall wala sax ci ñu mujj ñëwaat ci ginnaaw bi sama maam sëñ Saliou Ndiaye mii mooy bàyyi nijaay làmp ak nijaay sayar Anta Kumba ak nijaay maak ak ñooñu man man xamoon naa ko sëñ Assane mi xamoon naa ko ñoo xam ne ci gana yi ndaw yi lañ nga xam ne xëy na fekkewuñ ci lu may tuuti li ci des ñi sëñ daaru yar moo leen yar wala alaaj njagamee Eh, ca Touba Ndiaye nga xam ne sëñ Abdou Fatim Mballo moo leen yar soo leen gisee seen jëmm rek xool gisa maam saal man wala sëñ Assane dama leen daa seetaan ni ñu setee lu weex la ñuy sol ndànk la ñuy temp nangoo topp yàlla julli yi ñu daa def fii ci li mas a xew maam Sall moo ko daa jiite bi mu fi jógee xay la ko ñeneen di jiite nga xam ne loolu rek day wane tarbiya bi nga xamante ni moom la moom la amoon maanaam yar bi li mu doon yare njaboot bi ba yàlla suturaal ko ci ginnaawam ña mu fekkewul ba mën leen defar yàlla wóotu leen ci ginnaaw defar leen kon daal jot naa ne sama wax ji bari na lool waaye li ma bëgg a woon mooy sëñ Daaru Asan moom war nañu koo xoolaat war nañu koo xoolaat ñépp sax lañu war a xoolaat ci kër yëpp kër yëpp nag ndax suñu waxee sëñ Daaru Asan tey mën nañu wax sëñ Omar Diop sëñ Omar Diop mën nañu ko mën nañu wax sëñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdaws mën nañu wax sëñ sëñ Banda Sow mën nañu wax sëñ Souleymane Diop ak ñeneen ñu baree bari ndax defarub sëriñ bi la waaye nag comme que moom lañuy ñuy waxtaane ak tolluwaayu sëñ Daaru Asan ak li mu def ci njaboot bi war nañoo xoolaat wan ban jàngataat lañ ci am xool ci dundam li ñu mën a jariñ ci jamono jii ñu jëm te bari na lool su ko defee itam li mujj mooy moom laa njëkke woon nañ xoolaat taarix bi jëm koo sécuriser bala cee yeneen a dugg yu baree bari ndax fi mu toll nii ci kaw suuf koo mën a xam mu ne la sëñ daaru ju wér joo xam ne amut kum ko toxale amatul wala jotuma ko bokk ndax ku fi jóge lu ma téeméeraat kon nag liggéey jot na am ngeen sas wu rëy rëy ñu ngi leen di ziyaare baax waa minal baax yi mag seen laj na bi yéen a ngi liggéey liggéey bu am maanaa yu liggéey leen ko seen kër kese waaye yoonu murid lépp ngeen ko liggéeyal ndax sëñ Daaru Asan mën naa wax jullit ñëpp sax ndax so suñ lay nettali nam daa def jullit bu nekk mën na cee jariñu kon yàlla na ci yàlla defal tawfiq mu mat ak jàmm ba nga xamante ni da ngeen ci génnee loo xamante ni ku nekk dana ci gën a mën a jariñu ci jullit ñi ci taalibe yi ak sax ci doomu aadama yëpp ñoo ngi jéggaluwaat baax a baax di ziyaarawaat baax a baax di ci jéggul lépp lu ci dëng xam ne sunu njuumte la sunu gàtt alluwa sunu ñàkk leeral wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.